na amnistie xam nga modification boobu ñu ngi ko defoon 2018 à la veille de la présidentielle. tout à fait et c' était pour exclure Khalifa Sall ak Karim quand je dis euh, oui tout à fait. c'est pas pour les amnistier mais pour pour delloo leen seen i droit dana leen permettre ñu mën a inscrire et candidater mais bu ñu leen delloowee seen droit ça n'efface pas les amendes Karim Wade war na fay 138 milliards mais dans le dossier à la présidentielle da ngay présenter un quitus fiscal. Karim Wade mi ngi nekk di xeex pour mu am un nouveau procès donc ñu delloo ko ay droits mu mën a inscrire ci code ci ci fichier bi ñu delloo ko ay droits mu mën a candidater et mu continuer di xeex pour euh, euh, mu am procès bu bu bu bees c'est ce qu'il demande il demande à mon sens loolu gis ma lu ko gën mais amnistie pourquoi Macky Sall le président de la République bëgg def dialogue. dialoguer pour lan pour lan pour amnistier. pas seulement pour amnistier. pour lan euh, am na grief yu bari yoo xam ne euh, l' opposition apporté na ko par rapport à la présidentielle mun ngeen waxtaanee euh, grief yooyu parrainage bi par exemple mun nañu xool nañ lañ koy assouplir parce que parrainage dañ jékki-jékki rek xëpp ko gars yi conditions yi processus bi les gens n'avaient pas beaucoup compris et beaucoup de leaders qui auraient pu participer à l' élection dañ leen euh, dañ leen dañ leen éliminer il y pas que ça la question des des des des des de de tous ces militants euh, de PASTEF euh, de même de vos de deux de vos députés euh, loolu yëpp mun ngeen ko waxtaanee pour participer à pacifier euh, l'atmosphère politique. moom la wax sànq euh, les conclusions de du dialogue de 2019 boobu d'ailleurs contre feu la woon parce qu'il est il est spécialiste en contre feu le président de la République. Euh, dafay def dialogue mais jaloog la boo xam ne ni c'est sans conviction gis nga jaloog boo koy def da koy def de façon sereine ñi koy def confiance ci seen diggante et mu am sincérité et climat bi mu nekk un climat apaisant fi ñu tollu naka nga bëgg a demee dialogue jël une partie de militants d'un parti tëj leen jàpp benn leader def tout pour mu bañ a nekk candidat pour qu'il soit inéligible jël yenn député tëj leen booy dialoguer mooy danga nga bëgg jàmm danga bëgg wàcce tension bi moom la wax démb ci conférence de presse bi ma ne maak le président de la République Macky Sall c'est un nœud de contradiction et d'incohérence naka nga mën a yeewe fitna continuer di ko def ba barke démb mujj ci nga ne kaay leen ñu def dialogue dialogue boo koy def et ni ngay woowee dialogue da koy def ak jox cër ñu ngi ko seqal mais am na kilifa fu muy kilifa wax yoo xam ne ñu warul génn ci gémmiñam mënoo woote dialogue teg ci naan ku ñëwul xaw ma sa yaay je sais même pas français c'est ku <laughs> gedd sa yaay euh, kilifa loolu du du waxu kilifa <laughs> bu fekkee da woo ay nit. loolu doon tooñ rek. du tooñ <laughs> le président de la république c'est une institution. Ah, mais quand même mun na leen mbalax rek. président de la république booy wax hmm. ak sa ay nawle yu nekk ci opposition bi da leen di cëral jox leen. rax ci wax ne ku ñëwul doo bokk c'est du chantage wala lan la orma dafa baax ci nit ñun ñi bokk pur dara jaraluñu benn doxalin bi danga ñuy jox cër respecté ñu wekk ñu ñu mën a toog waxtaan waxtaan la sax lay nekk mais pour amnistier Khalifa Sall ak Karim le président de la République n'a pas besoin d'un dialogue position bi xam na opposition bi position bi ñu am ci parrainage bi xam na ko donc dialogue bi pour lan la c'est pour un monnaie d'échange xanaa c'est-à-dire il a toutes les cartes en main pour apaiser ce pays na bi am ci Sénégal yëpp nekkul kenn lu dul président de la République donc moom ci boppam su bëggee jàmm am ci réew mi suba mën na ko andi